laa biir gi mi ngi jóge ci Serigne Touba jëm ci ñetti kilifa yu murit yu mu toogaloon ne leen tey dama leen di jàngal njàpp daane booy jàpp dangay wax sam xel ne fas naa yéene lépp lu sama loxo yi masa laal rek ci lu waroon maa ngi koy tuub booy galaxndiku nga ne lépp loo ma mos a wax booy sël mu nga wax ne lépp loo ma mos a gis ba cëri àgg buy àgg ngay set am ci ko ne ko yow de da ngaa mat sëriñu mag ndax da ngay fekk lu mag xamul nga dëkk ko xamal fekk lu mag amul nga dëkk ko amal wuute gaañ yi ndax dañuy tëndaatu te yow da ngay